mawdu am solo mawdu boo xamante ni mel na ni méngoo na ak waxtu yi nga xamante ni ci lañ toll ni war koo waxtaanee war koo càmbar war koo jàngat bu baax baax ngir loolu dina tax ñu bëree bëri gën a xam fi ñuy teg seen tànk bu baax a baax loolu mooy lan mooy al amru bil maaruf wa nahyu anil munkar surut yi ak yi nga xamante ni mooy wasaay lii nga xam ne moom lañ koy defe loolu mooy lan diggle lu baax waaye tere loo xam ne aw safaan yooyu nag dafa am ay surut yoo xamante ni mënu cee ñàkk waaye ngir surut yooyu mën a jàppale itam faw day am ay wasaayil yoo xamante ni ay jumtuwaay ay jaaruwaay yoo xamante ni faw ñu mën cee jaar ngir mën a ak foofu nga xam ne fa lañ jëm kon muy mawdu bu am solo boo xamante ni fas nañ kee ànd ak ku ñu ràññee ci dëkk bi ci xam-xamam ci gëstoom ci yittewoo li nga xamante ni mooy njàngaleem Sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Bamba di Souleymane Badiane ñu xam ko lool ci ay conférence yi muy taxawe moom mu jànge fi nga xam ne fii la ñëpp di jàng jàng li ñëpp di jàng mokkal ko ni ko ñëpp di ko mokkale muy alquranul karim di teer bu mag boobu nga xamante nii doy na xam-xam bim ko mokkale itam wéyale am njàngam ci li nga xamoo di ay majalis yu téere xam-xam yi ñu xam ràññee to mel ni doomu soxna yëpp ku ne la ngay bàkkoo di ko ndàmmoo faw nga jaar ci yooyu moom jaar na foofu Euh, ci ay barab yu fasantikoo nag waaye mën nañ ci ràññee rek fi nga xame moo di jaamal ak fi nga xamante moo di sëñ euh, sëñ Mbàkke Abdourahman euh, yooyu muy jaar waay yu am solo yoo xam ne xam naa nekk di ko kii sax dina dina xaw gudd lool ndax jaar-jaar bu gudd la foofu bi mu fi jaaree bu noppi nag tey jii nag fi ñu wax ak yéen mu ngi jàng di jàngale li nga xamante ni moo di alxuraanul karim di téere bu sell boobu yor daaram waaye itam di jàngalewaale majalis di gëstuwaale di def ay confrance ba tey jii nag ñu woo ko fii ci jumaa yi Touba ngir mu ànd ak ñun ci waxtaan wam solo yi nga xam ne daara Muxaddamatul Xidma ñu ngi koy taxawee kon sëñ Souleymane Badiane balaa ñuy mën a sori rek dañ lay jox kàddu gi di di la ñaanal bu baax a baax dënn bu ubbeeku lammiñ bu fecceeku mu ànd ak leer goo xamante ni ñi koy dégglu dinañ ci mën a tàttan bu baax a baax boo nga xam ne buñ demee bu ci cëppaandaw gi rek ku ne li nga ci foogoon ak li nga ci jàppoon ne noonu la amee solo nga mën koo jëriñoo noonu kon fal yet fal yet faddal mashkura alhamdu wal insa liyabuduuh wa shahida annahu laa ilaha illa huwa liyuwaxiduuh wassalaatu wassalaamu ala nabiyihi alhaadi alamin almabuusi rahmatan lilaalamin wa ala alihi wa saxbihi wattaabiciin wa man tabi'ahum bi imaanin wa islaamin wa ixsaanin ila yawmi ddiin suñ borom dool leen tawfiq ak kàttan ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy taxawee lépp di lu rafet di nuyu di ziyaara di ndokkeel képp kuy dégg suñu kàddu ci jotaayu tey bi ñu war ñëw ubbi benn bunt jàngat benn tomb ci diine muy fiqhul amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar di buntu bu rëy bu yitteel képp koo xam ne nit la kuy dund ci kaw suuf rawat na muy ab jullit te buñ demee ci alquranul karim buñ demee ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay waxam ak ay jëfam ci njàngaleem sëriñ Tuuba radiallahu ak nit ñu baax ñi dañuy fekk ne bunt la bu yitteel bu mat di jàngat ndax bépp xeet bu mas dund ci kaw suuf ak jamono ju mën a doon nag barab bu mën a doon mboolem xeet yi mas a dund ci kaw suuf yàllaa ngi tàggat ay tànneef ci mbindeefam yi di leen liggéeyloo ci bunt bi muy al amru bil maarufi wa nahyu anil munkar ndax day lu mënta ñàkk loolu mooy liggéeyu mboolem yonent yi yàlla yónni alayhimu salaatu wassalaam waaye mooy liggéeyu mboolem boroomi xam-xam mboolem kilifa yi nga xam ne feeñ nañ ci jamono ju mën a doon ak barab bu mën a doon di wommat mbindeef yi jëme leen ci aw yiw kon tomb la bu yitteel boo xam ne jullit ñi war nañ ci jàngalante war nañ di ci nafar di ko fàttalante jamono ju ne waaye rawat na suñ jamono ji waxtaan wi danañ ko tomb tënk rek ci ñetti tomb gannaaw buñ xamlee lan mooy al amru bil maaruf wan nahyu anil munkar danañ dem ci alquran ak ci sunna ba gis ne liggéey la boo xam ne lu mënta ñàkk la lu war la maanaam farat la ci ab jullit delluwaat ci alquran ak sunna ak ci njàngaleem nit ñu baax ni rawat na Sëriñ Tuubaa xam yan charte mooy dajee ci nit ki ngir mu mën a taxawee liggéey bi di digle lu baax di tere ab safaan waaye delluwaat jàngat yan jumtukaay moom la nit ki di dimbali ko yan yoon ak yan bunt la war a ubbi ngir mën a taxawee liggéey bu réy bii ba am ci lim bëgg kon duñu guddal foofu waaye dañuy dugg ci liggéey bi tàmbalee ñu xam lan mooy al ak al almaaruf baat la boo xam ne bu ñuy jàng alquran dañuy dajeeg moom lu bari dañuy dajeeg moom lu bari ci téere bi yàlla bi baat la boo xam ne ñëw na fanweer yoon ak juróom-ñett ci alquranul karim te fu mu fi ñëwee it yàlla da ciy soññe ma ngay tagg aw nit ñoo xam ne yaamuruuna bil maarufi wa yanhawna anil munkar wala ma ngay ŋàññi nit ñoo xam ne dañoo neenal loolu duñ ko def wala ma nga cay joxe ndigal ma ngay woote jëmee ca baat bi nag e, buñ ko waxee luqatan mooy lu ñu xam ñii jàngat baat yi ak seen cosaan ak la ñuy tekki baatu maaruf dañ koy firi ci anam yu wuute dañ koy firee mashhur di ko firee ixsaan di ko firee aljamil albirru alxayr yëpp rek nga mën cee jàngat leen na mooy li mu mooy lu baax mooy mooy yiw mooy njekk moo tax dañuy wax ne almaaruf ismun lima yaarifuhu alqalbu wa yatmainnu ilayh jëf ju baax mooy jëf joo xam ne xol da koy xam léeg-léeg du aajo sax jàng ak leerlu waaye xol moo koy xam di ko nangu bu dee wax la nopp bu ko déggee rek xol mooy xam ne wax ju baax a ngi bu dee jëf la bu ko bët gisee wala nopp dégg ko wala xel dem ca xel mooy xam ne jëf ju baax a ngi kon ismun lima yaarifuhu alqalbu wa yatmainnu ilayh wa taskunu ilayhi nafs muy lu am solo ba tey danañ ko xam xamle bu dee ci lislaam ndax wax nañ ne mboolem xeet yi mas dund ci kaw suuf mboolem diine yi mboolem mbooloo yi xabaaraat yi mas am ci kaw suuf yépp yitte woon nañ al amru bil maaruf wa nahyu anil munkar waaye xeet wu ne nit ñu ne ak ñoom nan lañ déggee ñaari baat yi lan mooy maaruf fi ñoom lan mooy munkar fi ñoom yow jullit nag jullit bi nga xam ne yàlla def laa taalal làmp bu leer naññi làmp boo xam ne asluha saabitun wa far'uha fi sama leer gu gëndaloo diggante asamaan ak suuf leeralal la sa dund bàyyilut la dara foofi toll mu jàngal la wax la lu leer loo war jëf naka nga koy jëfee loo war a bàyyi lislaam jooju di diine leer moom moo ñu xamal lan mooy maaruuf soññi ñu ci xamal ñu lan mooy munkar siblooñu ko dawlooñu ko wat ni ko looñu ko moo tax almaaruf ci lislaam ismun jaamiun li kulli maa urifa min taati wa taqarrubi ilayh wal ixsaani ila nnaas wa ila alxalqi umuman baat la boo xam ne dafa boole mboolem xeetu topp yàlla mboolem luy jegeel nit ki yàlla baat la boo xam ne day làmboo lépp loo xam ne ak rafetal la moo xam wax la jëf la nit di ko jëf mu jëm ci ay moroomi nitam wala mu jëm ci yeneen mbindéefi yàlla yi donte duñ sax ay nit kon baat la bu rëy baat la bu bu am sens baat bu am maanaa la bu ñu xamee maaruf mooy lan rek day yomb lool ñu xam lan mooy al munkar wa bi diddiha tatamayyazul ashyaaw munkar mooy ab safaan ñu njëkk jàng ne al amru bil maaruf wa nahyu anil munkar baatu maaruf ñëw ci alquran fanweer ak juróom-ñetti yoon baatu munkar ñëw ci alquran fukki yoon ak juróom-benn te ñu gis ne maaruf yépp yàlla da ciy soññe munkar yépp da koy tere da koy wat dikuloo loolu liñ ciy déggee mooy lislaam ji diiney amru bil maaruf wa nahyu anil munkar la téeréb yàlla bi alquran téeréb digle lu baax tere lu bon la mboolem lu baax lu nit xam ak lu mu xamul ci àdduna rek alquran digle na ko lépp loo xam ne safaan la alquran tere na ko xam-xam yi alquran làmboo nett li yi muy nett li ci xissaay way jiitu ak di xabaar lu ñëwagul yépp ngir lan nañuy roy ca lu baax di wattandiku la nga xam ne ab safaan la kon mën nañu wax lépp rek amru bil maaruf la wa nahyu anil munkar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku tuddee woon wa nahyu anil doo juum boo ko tuddee woon rasulul amri bil maaruf wa nahyu anil munkar juumoo da fekk ne tur la wu méngoog ay melokaanam méngoo ak jëfam méngoo ak diine ji nga xam ne moom la indi mooy lislaam moo tax waykatam ba taggkatam ba bu sayri rahimahullah waxoon ca burda nabiyuna al amiru naahi fala ahadun abarra fi qawli laa minhu wala naami sallallahu alayhi wa sallam mooy yonent bi nga xam ne ak dundam lépp amir la day digle yiw dundam yépp naahi la day tere ab safaan amul ku ko gën a dëggu ca la muy digleeg la muy tere amul ku ko gën a dëggu ca la muy jàpp ak la muy bàyyi fa muy waxee waaw ak fa muy waxee déet lu ci ne ma ngi koy teg place am sallallahu alayhi wa sallam na leeral loolu bam ñu waxee ne yàlla moo yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye moo digal xeet wi ñu topp ko ne alladina yattabicuuna arrasula annabiya al ummiya alladi yajiduunahu maktuban indahum fi tawraati wal injil yonentu la boo xam ne mboolem melokaan yuy daje ci ab yonentu léppañ ci moom wa ziyaada yàlla dollil ko def ko muy sangub yonantu yëpp di yemut ca waaye mooy sangub bindéef yëpp ña téere yu njëkk yi fekkoon nañ ca seen téere tawraat ak injiil ay melokaanam yàlla joxoñ ko fa wax ko ba mu leer naññi bokk ci melokaan yooyu yaamuruhum bil maarufi wa yanhaahum anil munkar daf leen di digal lu baax di leen tere ab safaan di leen daganalal tayyibaat yi di xaraamal ci ñoom xabaayis yi di leen teg ci yoon woo xam ne moo leen di tàqaleeg bàkkaar moo leen di woyofalal diis diisi bàkkaar waaye ca mujj aaya ba mu ne falladina amanu bihi wa azzaruuhu wa nasaruuhu wattabau nuur alladi unzila maahu ulaika hum almuflixuun sadaqa allahu alazim ñi nga xam ne gëm nañ ko wuy ci ab wooteem te gëmuñ rek ne gëm naa toog jàpp seen bopp waaye dañ cee boole di ko dimbale di tasaare ab wooteem di jàngale am njàngaleem di jottali kàddoom di liggéey lam daan liggéey te mooy yaamuruhum bil maarufi wa yanhaahum anil munkar topp leer gi nga xam ne moom la yàlla wàccee ci moom muy alquranul karim borom bi nee na ñi def loolu ñi ko gëm dimbale ko ci anam googu ñooñu ñooy way texee aaya boobu doyoon nañu sëkk ñu xam ne al amru bil maarufi wa nahyu anil munkar farata la ci ab jullit farata la ci ab jullit rawatina bu charte dajee ci moom te danañ ca ñëw waaye yàlla gën a feddali loolu joxe ndigal li ne wal minkum ummatun yad'uuna ila al na am ci yéen àdduna lim laaj ndax doomu aadama yàlla da ko wàccee ci kaw suuf bokk ci lim ko sas na dundal suuf moo tax mu war a jàngi lu ne war a xam lu ne war a wuti lu ne war a jéem man lu ne ak luñ bëgg xam ak luñ bëgg a man ak luñ bëgg a am borom bi nee na jamono ju nekk na am ci biir jullit ñi na am ci xeet wi kuréel boo xam ne mbooloo moo xam ne seen yitte ak seen liggéey mooy al amru bil wa nahyu anil munkar gis nga ni mu leen tuddee yad'uuna ila al xayr mooy lan mooy ya'muruuna bil maaruf wa yanhawna anil munkar waxaat la mu waxoon te mooy dig leen ak texe ne wa ulaika humul muflixuun yàlla joxoñ xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas xeet yi mas a jaar ci kaw suuf bari na waaye yéen yéenay xeet wu mas a ci suuf rek yeneen xeet wi ko gën te ngëneel loolu la koy may mooy taamuruna bil maarufi wa tanhawna anil munkar loolu ab charte la demee ci tafsiru al qurtubi rahimahullah day wax ne bilmaarufi wa tanhawna anil munkari wa tuminuuna billah ci aaya bii mooy charte bii tax ñu am xayriya gi nga xam ne moom la yàlla di joxañee xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax bu ñu fàtte bu ñu fàtte ne xeet ya jiitu woon wàcc yoon am na ci ñu yàlla ŋàññi am na ci ñu yàlla mere ngir lan kaanu laa yatanahawna an munkarin faalu dañ daan def ab safaan te kenn bu leen ko tere ku dul tereb safaan doo digle lu baax kon dañoo neenaloon mabdawul amri bil maaruf wa nahyi anil munkar yàlla jéppi leen alquran wàcc ŋàññi leen rëbbu leen ci loolu moo tax qurtub yi di wax ne hadihi l ayatu madxun li ummati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam aaya bi aw tagg la ci xeetu yonent yàlla muhammad waaye lu waral tagg wi ak lu leen ko may li annaha taamuru bil maarufi wa tanha anil munkar kon feeg ñi ngi jëfee ndigal loolu feeg ñi ngi liggéey liggéey boobu dañuy am xayriya muy ngëneel li nga xam ne yàlla jox na ko ci kaw yeneen xeet yëpp waaye bés buñ bàyyee ndigal loolu jëfewuñu ko xayriya googu day ànd ak moom dañ ndax moo doon charte bi beneen aaya alquran borom bi di melal ñi gëm yàlla moo xam ay góor lañ wala ay jigéen lañ di leen dig gannaaw ba melalee joxe seeni melokaan dig leen ne ñoom lay yërëm ëllëg yowmal qiyaam yërmande yàlla ñoo cay njëkk ñoo cay mujj yàlla wax na ci xadis qudsi ne sabaqat rahmati ghadabi sama yërmande jiitu na sama mer wax ci alquran wa rahmati wasiat kulla shay sama yërmande lépp xaj na ci biir ñëpp xaj nañ ci biir waaye ndax ñëpp laa koy jox bu ëllëgee déedéet fa sa aktubuha lilladina yattaquun tënk na ñi muy jox yërmandem mooy ñi nga xam dañoo am taqwa yërmande jooju nag alquran wax nañu ne képp ku boo bëgg yàlla boole la ci ñi muy yërëm da nga jikkoo al amru bil maaruf wa nahyu anil munkar mooy di digle lu baax di tere ab safaan walmuminuuna walmuminaatu baaduhum awliyaau baad yaamuruuna bilmaarufi wa yanhawna an almunkar wa yuqiimuuna alsalaata wa yu'tuuna alzakaata wa yutiicuuna allaha wa rasulah ulaika sa yarxamuhum allah inna allaha azizun xakim sadaqa allahu alazim kon bëri na lool lool ci alquraanul karim aaya yi soññe jullit bi ak di joxoñ lislaam di farataal ci ñoom ñuy digalante lu baax di terewante ab safaan waaye noonu mu mel ci alquran it noonu la mel ci biir sunna si yonent bi booy gëstu ci sunna bi yonent bi fu wala siira yonent bi ak dundam loo ciy jàng rek ay wa dangay fekk mu fees dell ak amru bil maaruf nahyu anil munkar danañu doy bu ñu demee ci saxiixul buxaari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne jullit bi jullit bi sarax dafa war di génn ci moom bët bu set ala kulli muslimin sadaqa jullit bu ne rek daa war di saraxe lu mënta ñàkk la saxaaba yi laaj ne ko waaw ku amut lum saraxe nag ku amut lum saraxe mu ne fa yaamalu bi yedey fa yanfau nafsahu wa yatasaddaq na dem liggéey na liggéey liggéey bu liggéeyee am lam am mu jariñu ci saraxe ngir yàlla ñu ne ko fa in lam yastati bu mënut liggéey ki am ngànt mënta liggéey mënta wuti nu muy def mu ne fa yuinu dal xaajatil malhoof ku am soxla aajowoo dimbale mu dimbale ko ngir yàlla gaa ñu ne ko fa in lam yafal bu defut loolu nag mu ne fa yaamuru bil xayr na digle lu baax moo tax saa boo diglee lu baax rek am nga tiyaabay sarax boo teree ab safaan kadalika mel na ni saraxe nga loolu di soññee bu rëy ci képp koo xam ne bëgg na aw yiw ndax xam nañ sarax li ci ne ci ngëneel ak tiyaaba jullit ñépp yittewoo ko moo tax asalafu saalix tàmbalee ci saxaaba ya ridwanullahi alayhim ak ñi ñëw seen ginnaaw ba jantub tey tey góorgóorlu ci yoonu njub dafa bokk ci seen liggéey di yëkkati kàddu dëgg saabu bu jotee di digle lu baax fu ñu ko war a diglee di tere ab safaan ca nañ ko mënee saa ko gisee ngir yonent bi sallallahu alayhi wa moo leen jàngaloon waral ci ñoom ne képp koo xam ne gis nga ab safaan taxawal ci na dañ dindi ko ak sa loxo boo ko mënul ci sa làmmiñ boo ko mënul ci sa xol bu fekkee ne gis nga safaan te amoo ci dara lu la metti ci sa xol lottu nga ci dañal ko sa làmmiñ sa loxo mënul ca dara lu toll ni pepp suuf deseetoo ko yow ci gëm yàlla la gën a néew gën a doyadi gën a ñàkk solo ci gëm yàlla mooy boo gisee safaan te mënoo koo dañal amoo pexe moo ko dindee amoo làmmiñ woo ca waxee ba mu dañ nga mettitlu ko naqarlu ko ci sa xol loolu xadis la boo xam ne xaaida bu rëy la ci diine danañ ci ñëwaat kon mbokk yi euh, amul benn sikki sàkk ne al amru bil maaruf wan nahyu anil munkar te mooy di digle lu baax di jàngale lu baax di woote jëmee ci lu baax di wat di ab safaan ak di ko aaye ki ci nekk nga laabire ko génnee ko ci bu dee koo yilif war war ko tee génnee nga taxaw ci mu bàyyi ko loolu xaaj la boo xam ne kenn mënu koo tàqale kenn mënu koo ber ci diine ji dafa bokk ci jëmmi diine bu diine doon jëmm ju taxaw ci yaram wi la bokk kenn mënu ko caa dindi naa leer na ci aaya yooyu waaye ci xadis boobu te dañuy tënk waaye bëri na lool lool ci alquran aaya yi wax ci bunt bi bëri na ci sunna si yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ay xadis yi wax ci bunt boobu mu des nag ñu war a xam ndax euh, kan mooy saña digle ak di tere ana kan la sharia teg ci gaal loosam warteefu digle lu baax ak tere ab safaan ndax jëf joo xam ne rawat na ak jaamu yàlla la alquran da cee soññee lislaam di diine ju mat joo xam ne lépp rek day tegu fa mu war a tegu moo tax lu yàlla farataal ci jullit ñi mu war a am charte yuy dajee ngir loola mat faw ñu xam charte yooyu ba mu leer shurutul amri bil maaruf wan nahyu anil munkar maanaam kii digle lu baax di tere ab safaan yan charte ñoo war a dajee ci moom ba mu mën liggéey boobu du jar ñuy sori bu ñu ubbee al nafis danañ fekk sëriñ Touba radiallahu anhu jàngale ko ba mu leer ci muqaddimaab téere bi fa muy waxee wa an yakuna amiran bi rushdi wa naahiyan li nusxatin an diddi gannaaw ba mu tàmbalee ca awalu maa awjabahu rrahmanu qatan ala almukallafi l jullit bii dund ba mat mukallaf li njëkk doon farata li yàlla njëkk waral ci moom mooy imaan na na na wéralaat ak gëm yàllam na yeesal ak gëm yàllam laabal pas-pasam ci lépp loo xam ne bokkaale yàlla la laabal pas-pasam ci lépp loo xam ne njuumte la ci pas-pas am gëm yàlla gu set gu mat ginnaaw loolu ya ca topp sëriñ bi indi ko lu mel ni laab ak i àtteem àttey e, julleeg woor yooyu nga xam ne ay furudul ayni la faw mu jàng ba xàmmee ko ràññee ko man koo def ci nañ ko ko digale di lim yi yàlla waral ci mukallaf ba yegsi ci wa an yakuna amiran bi rushdi wa naahiyan li nushatin an diddi bokk na ci farata yi bokk na ci yi yàlla waral ci mukallaf nay digle lu baax nay digle ak njub di tere ab safaan loolu da koy def ngir di laabirante ak mbokki jullitam di dénkanteeg ay mbokki jullitam dëgg bu ñu fàtt ne yàlla waxoon nañu ci alxuraan ne doomu aadama yi ñëpp ci perte lañ nekk ba mu des rek benn kuréel te mooy ñi gëm yàlla di def lu baax yemuñ ca waaye ña ngay dénkante ak dëgg ña ngay laabire di waxante dëgg ngir yàlla di dénkante ak muñ kon loolu farata lu mënta ñàkk la euh, jullit bi di digle lu baax di tere ab safaan lakinnahu lahu salaasatun shurut dakaraha fi sharxi cheikhuna al nee na waaye digle lu baax li muy baax baax tere safaan li muy baax baax am na ñetti charte yoo xam ne mooy dajee ci kii diglee ka tere comme ni ko charixul axbar yi téere bu ñuy wax umdatul bayaan umdatul bayaan fii maarifati furudil ayaan ñenn ñuy bind fii maarifati furudil ayaan benn boroom xam-xam bu dëkkoon andalus ca xartaba moo ko bindoon charxu matnul axdari bii nga xam ne moom la sëriñ bi way tuddee ko aljawharu nafis sëriñ bi sukkandiku na ci kooku dellu na ci moom lu bari ci ni mu wayee aljawharu nafis moo tax mu ne digle ak tere am na ñetti charte anaytu fi ljawaazi wal wujubi fa haaka addaha ala tartibi nit ñi dañoo doon ay xaaj xad alima kullu unaasim mashrabahum kenn ku nekk fa ko yàlla teg foofa la yàlla di waxee ak moom foofa la sharia di waxee ak moom am na ñoo xam ne digle ak tere waajib la lu mënta ñàkk la lu war la ci ñoom am na ñoo xam ne jaayis la lu dagan la rek ci ñoom buñ ko mënee def def ko moo gën buñ ko defut du tax ñooy leen da bàyyi lu leen waroon moo tax mu ne anaytu fil jawaazi wal wujubi fa haaka addaha ala tartibi ñetti charte yi sëriñ bi indi nag du dàquwante danga jàng keneen di lim shurutul amri bil maaruf wa nahyu anil munkar tudd ci juróom wala juróom benn wala sax fukk waaye boo seetloo dangay ngay fekk ne yemuy indi nu mën a toll rek lépp day dugg ci biir ñett yi lépp day dugg ci biir ñett yi ñuy bëgg a wax bi ci njëkk mooy ay an yakuna aaliman bil munkari wa li charrin akbari wa an yakuna qaadiran dul amri ala al izalati bi ci ñaari bayt yi tënk na charte yépp bu njëkk bi an yakuna aaliman bil munkari mooy na xam ràññee xam nga ne jullit bi mboolem jëf yi ko diineem sant mu war koo jëf ci kaw suuf la ci njëkk mooy nay jàng xam ràññee kii xamul ki nekk ci kàmbi réer benn farata moo tegu ci kawam mooy na daw génn ci réer googu na na na na jéem a xam na jàngi na laaj na roy ci way xam yi kon balaa kenn di digle lu baax wala ngay tere ab safaan na fekk yow ràññee nga xam nga lan mooy ak mbaax xam nga lan mooy ab safaan loolu nag faw ñu taxaw foofu ndax ku ne xam na ne am na ci diine loo xam ne jërul jàng ñi jàng ñi jàngul ñëpp xam nañ ko ñëpp xam nañ ne julli farata la julli ñi dañoo war a julli ñëpp xam nañ ne woor farata la ci ku amul ngànt ñëpp xam nañ ne wax lu dul dëggal lu bon la lu xaraam la naan am ñoll lu xaraam la jëw lu xaraam la yooyu nga xam ne ay daruriyaat la ñi jàng ak ñi jàngul ñëpp nañ ko ràññee nañ ko jullit ñëpp am nañ sañ-sañ di ci laabirante te yàlla tax foo fi gisee ku ci neenal loo xam ne farata la wala yiw la wu rëy ci moom nga digal ko laabire ko loola lu baax la koo gis mu nekk ci safaan nga mën koo laabire bàyyiloo ko ko safaan yu fes yooyu nga xam ne même boo jàngul xam nga ne lii safaan la baaxul nga laabire ko bàyyiloo ko safaan boobu kon bu ñuy wax kii diglee ka tere na doon ko xam dafa am ci diine yeneen masala yoo xam ne yu yu yu xóot la yu sew la yoo xam ne ñi jàng ràññee rek ñoo ca mën a wax lu leer kon yu mel noonu e, pour nga digal ca kenn wala nga tere ca kenn faw nga lay jiitu ci yow mooy nga jàng ba xamee loolu tax mu ne ay an yakuna aaliman bil munkari ndax boo ko xàmmeewul boo ràññewul mën naa am yaa ngi digle dara jàpp ne lu baax taifatun li yatafaqahu fi ddin wa li yundiru qawmahum ida rajacuu ilayhim laallahum yaxdaruun lu tee kuréel gu ne lu tee kër gu ne rek kër gu ne lu tee ñu am ñuñ génnee ci seenu njaboot ñu jàngi diine waxuma jàng ngir xam fardu ayni loolu jullit ñépp la war jullit yépp yépp ñoo war a jàng jéem a xam seen furudul ayni waaye njaboot gu ne na am ñu ca jàngi ba xóotal seenum njàng te ñooñu bu ñu amee xam-xam bu yaatu ci diine bu leer bu wér mën a dimbalante ak seeni nit mën a dimbalante ak seeni mbokk di leen fàttali di leen yee ak di leen jubbanti di leen jàngal kañ lañuy def loolu ki jàngi woon war a ñëwaat di dimbalanteeg ay mbokkam ca lam jàngoon ida rajau ilayhim ida rajau ilayhim yëmul ci jàngi nañ ba ñibbisi waaye nañ dellu ci waat ci biir nit ñi am yëg-yëgu ne ñoom kenn lañ ci biir nit ñi war a ànd ak nit ñi di laabiranteeg ñoom te yàlla tax bokk na ci jumtukaay yooyu nga xam ne dana dimbale ci al amru bil maaruf wan nahyu anil munkar Euh, ay jumtukaay yoo xam ne day génn jëmmi ji digle day génn nit ki nga xam ne moom mooy féete di diglee ko tere waaye yenn moyens yoo xam ne da koo soxla ngir mën a jàllale message bokk na ci lu mel ni néegu yàlla yi lu mel ni jàkk walla jumaa jumtukaay la bu mag boo xam ne lislaam amul jumtukaay bu ko gën a rëy ci mboolem ay mbiram yonent bi sallallahu alayhi wa ku ne xam na ne jàkkaam ja moo doon léppi jullit ñi lépp lu yitteel jullit ñi rek buñ bëggee jàng buñ bëggee àtte buñ sa amee sax gan ñu amuñ fu ñu dal wala luñ xawle ca jàkk ji lañ koy defaree moo tax buñ demee ba yaakaar ne jàkk moom mooy julleeg sëlmal rek jeex na la leen amu fa aw nañ ci yoonu rey jàkk yi dafa bokk ci lii du dégg yàlla yi subhanahu wa taala jotaay yu mel nii di fàttalante ak di laabirante ci diine kon jàkk yi ak jumaa yi rawatina xutba àjjuma yi jumtukaay la bu rëy ngànnaay la lu diis loo xam ne yàlla teg na ko ci loxol ilimaan yeeg kilifa yi ñu mën a dimbaleen nit ñi ci leen digal lañ leen war a digal waaye di leen tere lañ leen war a tere di laabirante ak ñoom di fàttalante ak ñoom di yeetante ñoom ci diine bu dul jàkk yeeg jumaa yi ak xutbaay ajuma yi it euh, xew-xew yi rawat na xew-xew yi nga xam ne dañ koy xewal ci turu diine moo xam ay conférence yu ñuy woote la wala yeneen bés yoo xam ne ay xew-xewu diine la mbooloom jullit ma di fa dem ngir jëmmi yàlla ngir diine dëgg-dëgg xew-xew yooyu yëpp war nañ leen a tawfiif ci digal jullit ñi lañ leen war a digal tere leen lañ leen war a tere te liñ leen war a digal lu leer la mooy yi leen yàlla subhanahu wa taala digal fàttali ndigali yàlla fàttali ndigali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen wat ndikuloo di leen tere lépp loo xam ne lislaam da koy wat loo ab jullit kon loolu it bokk na ci jumtukaay yi nga xam ne yi ñu war a jariñoo la waaye fii jamono tollu tey eh, jumtukaay yu jokkoo yi jàppandi te yaatu lool daanaka nit ñëpp tënk ci seen bopp eh, kilifa yi ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy déglu ci ndigal yeeg tere yi fekk ci nit ñi ci jumtukaay yooyu di jonjanteeg ñoom ci jumtukaay yooyu di digle saa bu ñu waree digle di tere saa bu ñu waree tere comme ni ko ñu bari di defee loolu lu mënta ñàkk la ndax jumtukaay la boo xam ne yàlla tàggat na ko muy lu sori mu jegeel la ko làmboo ay njariñ lu yu yu bari lool dafa bokk ci sant yàlla jëfandikoo xéewal yim la jox tàggatal la ko teg ko ci sa ñaari loxo kon loolu jumtukaay la boo xam ne bu mat a bàyyi xel la bokk na ci jumtukaayu diglee ka tere buñ kenn yaakaar ne diglee mooy defal nangam rek tere mooy bàyyi nit ki léeg na muy comportoo jikkoom yépp rek ña ko xam di jëflanteek moom dañuy mën a jariñu ci jikkoom jooju di ko roy kooku ci lisaanu xaalam donte waxul ci lisaanu xaalam ma ngay digge lu baax ci lisaanu xaalam ma ngay tere ab safaan kon nit ki mën na di digle man di tere ab safaan ci na muy jëflante ak nit ñi na muy dundee diineem na muy góorgóorloo ci ndigali diine waaye ñooñu ñu yaakaar ne seeni baat mën na ca dara it buñ ko mënee dindi ci seen baat alhamdulilah buñ ko mënul ñu yeggali ko ci ñi nga xam ne dañ koy dindi ak seen loxo kon jàppante googu bu amoon jullit ñëpp rek ab yéene jëlee fi ab safaan euh, am yéene di soññante ci dox ci yoonu njub kenn ku nekk lala war fa nga toll yaa ngay bay sawaar sa kem kàttan lam la wóor ne lottu nga ci mënoo ko nga jàllale ko ca ña la féetee kaw loolu buñ ko defoon rek mën naa soppi lu bëree bari ci dundu doomu aadama yi mën naa jeexal lu bëree bari ci ay sayiaat ak ay munkaraat yoo xam ne siiw na tasaaroo na ci jamono te doon lu mënoon a ñàkk ci réew moo xam ne ay jullit ñoo fay dund moo tax ci alquranul karim ba ñu yàlla ne ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wa jaadilhum billati hiya ahsan aay boobu doy nañu sëkk lépp loo xam ne melokaan la wala jumtukaay la bu nekk ci jëmmu aji digle ji aji tere ji mën nañ koo jàngatee ci biir aaya boobu mooy di woote jëmee ci yàlla bil xikmati te kii woote jëmee ci yàlla ci xikma la jiitu ci moom mooy na xam ràññee bu baax innama ad'u ila allahi ala basira xam-xam bu leer xam-xam bu dëppoo ak xam-xamu lislaam mën a teg nit ñi ci yoon wi nga xam ne moom la lislaam gërëm loolu mooy jéego bu njëkk ci ma muy xam ràññee mooy waral la ca toppaat lépp nag lu ñëw mën a tegu fa mu war a tegu wal mawidatil xasana mooy lu mën a xew rek nit ki am xam-xamu ne moom du ab yonentu du malaaka waaye benn mbindeef la ci mbindeefi yàlla yi benn jaam la ci jaamu yàlla yi jullit bi ak nu mu mën a mel ak lu mu mën a def rek da jubloo laabirante ak moom ngir yàlla da nga yéene aw yiw bañal ko ab safaan kon booy wax ak moom booy jëflante ak moom wax jooju ak jëf mu feeñ bu baax a baax yëg-yëg boobu feeñ loolu mooy li nga xam ne moom la borom bi santaane nen nañ koy dunde nañuy woote jëmee ci moom ci anam googu te nañ ko waxe woon ki nga xam ne jullit la yég na ne moom jullit la la mu xam ci diine ba mu leer ko bari na wala bariwul loola bu ko mënee jàllalee ci ay mbokki jullitam ak jumtukaay bu mu ko mën a jàllalee loola lu war ci moom la loola day doon lu war ci moom dañuy nekk li benn buur boo xam ne dafa dégg ne benn waay liggéeyam yëpp mooy day xëy di diglee ka tere di digle lu baax di tere ab safaan mu woolu waajo mu ñëw ne ko waaw yow li ngay def kan moo ko sant ndax li ngay def sun wàll la ñun buur ñun la alquran waxoon ne alladina in makkannaahum fi l ardi aqaamu salaata wa aatawu zakata wa amaru bil maarufi wa naawu an il munkar ñi nga xam ne bu ñu leen joxee nguur bu ñu leen joxee doole ci kaw suuf danañu taxawal julli danañu joxe azaka danañ digle lu baax tere lu bon kon yow li ngay def ku la ko sant te doo buur kooka tontu ko ne waaw li nga wax lu wér la alquranul karim la waaye alquran jooju moo wax ak man ne wal muminuuna wal muminaatu baaduhum awliyaau baad yaamuruuna bilmaarufi wa yanhawna an il munkar te man kenn laa ci al muminuun loolu li nga ciy jàngee mooy euh, dëgg la buur am na sañ-sañu nose njaboot gëm yilif yëpp bu ko neexee tànn ña muy féetale diglee ko tere waaye loolu du tekki na ñoom rek ñoo ko sañ bépp jullit buy dund xam lu baax mën a woote jëmee ca man koo digle xàmmee ab safaan man koo soriloo nit ñi man leen koo sibloo man leen a waar bàyyiloo leen ko loola day doon loo xam ne lu war la ci yow moo tax kooku bi mu tontoo loolu buur bi rek buur bi da koo nangul tontum loolu bàyyi ko mu continuer di liggéey liggéey boobu nga xam ne moom doon liggéey kon euh, yow jullit yow mi jàng xam dara ci sa diine wala yow mi jàngul waaye ak loo ñàkk-ñàkk jàngit xammee nga am na yoo xam ne xam nga ne mënt ñàkk yàllaa ko farataal ci jullit boo gisee jullit buy sàgganee loola mën nga koo laabire mën nga koo woo mën nga koo fàttali ci yi woowu waaye safaan yi nga xam ni it fees na ba ñëpp xam nañ ko doonte jàngoo rawat na nga jàng foo gisee nit ku koy def nga mën koo laabire laabire nga jariñ laabire ko ngir yàlla wat ndikuloo ko sibloo ko ko ba mu bàyyi ko loolu aw yiw la wu rëy woo xam ne da ci jëlee ak te alquran wax na ko ci aay yu bari da nga ci jëlee yërmande yàlla alxuraan wax na ko da nga ci doonee dëgg-dëggi jullit am ci melokaanu jullit waaye lubbul amri mooy kiy diglee ka tere na bàyyi xel benn aaya ci alquran boo xam ne mën nañu wax ne li ñuy wax ni yépp tënk na ko ca suuratul luqmaan luqmaan alayhi salaam ba muy dénk doom ja ne ko yaa bu nay aqimi salaa aqimi salaa mooy lan mooy bala ngaa woote jëmee ci lan na fekk yow yaa ci jiitu na fekk yaa ci jiitu liñ waxoon léegi lislaam bëggul nanguwul mukk ak mbaax a nga ne la dem leen déedéet mbaax gaa yi ni ñëw leen ñu bokk góor góorgóorlu lislaam nanguwul mukk ab safaan a ngi nii maa ngi toog ci safaan man waaye yéen wattandiku leen sori leen déedéet na nga ne leen nañ bokk daw ko nañ bokk wattandiku ko kon yaa bunayya aqimi salaa door na ko wa'mur bil ma'ruf wa'mur bil ma'ruf del digle lu baax wanha anil munkar del tere ab safaan del tere lu bon wasbir ala ma yow mii digle ak di tere loola mën na laa jural ñu la noonu mën na laa jural sax ñu la bëgg fitnaal mën na laa jural ay jafe-jafe yu bari kon loolu day ànd ak wasbir del muñ ci lépp loo xam ne dal na la inna dalika min azmi al umur maanaam di góorgóorlu ci ndigali yàlla yi te aqami salaat dana yóbbaale yépp di laabirante ak say mbokki jullit ci digle lu baax di tere ab safaan ànd ak di muñ li ci nekk ci ay jafe-jafe loolu dafa bokk ci azmul umur dafa bokk ci mbir yi nga xam ne jullit bi da cee war a nangoo sonn war cee jànkuwante ki coono war cee mën a muñee lépp lu ko ci gaar moo tax aay boobu daanaka xaw naa tënk li ñuy wax lépp bu ñu jàngee taarixul islaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay saxaabaam ak ñi ñëw seen gannaaw te wàccuñu aw yoon ñii góor góorlu ci lislaam bu ñu jàngatee seenu dund ak seen siira seen taarix dañuy fekk mu fees dell ak yi bind yoo xam ne dafay dëppoo ak li ñuy jàng tey nii muy al amru bil maaruf wa nahyu anil munkar am na ci salafu saalix ñoo xam ne dund nañ ay natt yu diis jànkuwante nañoo jafe-jafe yu rëy xaj nañ leen lu bari luñu waroon a am ngir lan dañoo jàkkaarloo ak buur dañoo jàkkaarloo ak borom doole ju wàcc aw yoon imma a ngay noggutu ay jullit wala ma ngay xotti war may ndigali borom bi subhanahu wa taala def lu ko soob ñu laabire ko tere ko lañ ko war a tere moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa bokk na ci njàngaleem euh, kàddu dëgg wax ko ci kanam borom doole joo xam ne dafa wàcc aw yoon rawat na muy kàddu goo xam ne dana jariñ loola bokk na ci jihaad yi gën a màgg ci jihaad waaye ci siiratu saxaaba ak salafu saalix danañ ci jàngee ne lislaam li ko tasaare génnee ko madina mun a war a yóbbu ko mboolem ci goxe àdduna mooy ay jikko yu rafet ñoom dañ doon woote jëmee ci yàlla ci seeni jikko dañ doon digle lu baax ci seeni jëflante ak seen jikko yu rafet di tere ab safaan ci nañuy jëflanteeg nit ñi ak ci seeni jikko yu rafet te ba ba léegi rek tey boo demee dëkk bu mel ni Daaru Muxti sëriñ Abdourahman Abdul Quddus xafidahullah waraa da ngay fekk ne fa mu dëkk waxuma sax ñu ne ca daara ja di jàng waaye koñ ba rawatina mag ña ñu ci bëree bëri dañoo am diine lool dañoo fonk jàkk lool fonk julli lool di daw ab safaan lool ngir lan roy gu ñu roy ci ay jikkoom kon bokk na ci jumtukaay yi gën a gaaw te gën a mën a taasir gën a mën a jariñ ci bunt bii muy diglee ko tere euh, la ngay wax nit ñi fexe ba di ko dund buñ la xoolee rek gis ko ci yow buñ la xoolee gis ko ci yow bu seen xel demee ci yow sax mooy seen xel dem na ci ak mbaax seen xel dem na ci jikko yu baax dem na ci daw ab safaan loola rek doy leen ab soññi loolu mooy jumtukaay bi nga xam ne moo gën a màgg moom la ñëpp war a yittewoo sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu ku ne xam na ne bi muy woote ak ñi ko njëkk wuyu yar bi mu def ci ñoom jikko yi mu def ci ñoom waxuma sax ñi nga xam ne dañoo jàngoon ba am xam-xam waaye ñi jàngul woon mu yar leen def ci ñoom ay jikko def ci ñoom ak njub def ci ñoom lislaam ju set wecc ñooñu bi ñu tasaaroo waaye ci biir réew mi diggante bu gàtt ci lañ tasaare yoonam bi ci jikko yu rafet yoo xam ne jikko yi ñooy wax ak nit ñi jëflante yu rafet yi ñooy wax ak nit ñi ñoo leen di woo ñoo leen di sibloo ab sabaan di leen ko seexluloo loolu xam ne loolu bari yoon wi ba ñu ànd ak ñoom ci yoon woowu kon lu am solo la jumtukaay bu bu bu bu rëy la ngànnaay la lu diis loo xam ne euh, buñ ci bëggoon a yaatal mën nañ cee passé waxtu gudd waaye dañuy tënk wax yi fii di fàttaliwaat ñetti tomb yi nga xam ne moom lañ indi benn nañ bokk xam ne digle lu baax tere lu bon farata ci ab jullit jullit bu ne nag fa man manam toll fa la ko lislaam liggéey looyee ñaareel bi nañu xam ne képp kuy diglee ka tere war naa fekk xàmmee nga ràññee nga waaye war naa fekk la ngay digle doon loo xam ne luy jariñ la la ngay tere doon luy jariñ saa boo xamee ne safaan ba am na sa digle day lor wala sa tere day lor amatoo benn xàq ci di digle ak tere beneen bi ñu war a xamit ne képp ku yàlla yilif loo sa kilifteef nu mën a toll lu mu tuuti tuuti lu mu yaatu lu mu rëy rëy rëy am nga masuulee bu rëy sa digganteeg sa borom ci ñi nga yilif ndax yaa ngi leen di diggal li nga leen war a digal ndax yaa ngi leen di tere li nga leen war a tere te bés a ngi ñëw insha allahu yàlla daan la laaj lépp waaye ñu bàyyi xalit ne yoon wi gën a gaaw ci digle lu baax tere ab safaan mooy faxe ba mbaax googu seexlu safaan boobu sib ko bañ ko doon luy feeñ ci sa say wax ak say jëf doon lu feeñ ci say jëflante ak ci say jikko nga xam ne day mel ni làmp buñ taal ñu bari di góor-góorlu ci mbaax doonte waxoo ak ñoom santoo leen di sib ab safaan di ko daw te jàngee ko ci yow doonte waxoo ak ñoom loolu mooy yoon wi nga xam ne moo gën a gaaw mooy yoon wi gën a jub yoon wi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rëddoon ci la saxaaba bi doon dox ña yaroo ci ñoom ci yoon woowu lañu doon dox ba ci Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu yoon woowu la doon xàll ñim yar ci la leen yar muy bëgg lu baax di woote jëmee ca seexlu bañ ab safaan di ko daw di ko wat ndi nit ñi loolu mooy tomb bi nga xam ne moom lañ doon fàttalante ak yéen tey muy al amru bil maaruf wan nahyu anil munkar ak shuruut yim làmbool ak yenn wasaayil yi nga xam ne mën naa dimbale kii soobu ci liggéey boobu ba mën yeggale am njàngaleem hada wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamin euh, jërëjëf jazakumullah xayran ñu ngi leen doon fàttali ne ñu ngi fii ci jumaay Tuuba ci waxtaan yi nga xamante ni daayira muxadamatul xidma ñu ngi koy ànd ak yéen saa su ne ak waxtu ne rawat na ci weeru sel wi di weeru koor tey jii nag ñu dalloon fii ki nga xamoo di euh, sëriñ Souleymane Badiane di boroom xam-xam bu ñu ràññee doon waxtaane al amru bil maaruf wa nahyu anil munkar mu am ay shurut am ay wasaayil mu leeral ko leeral bu am solo boo xamante ni niñ ko séenoo woon ci moom niñ ko yaakaare woon ci moom doyloo gi ñu amoon kóolite gi ñu amoon daara bi daayira bi teg ko ci loxoom alhamdulilah yaakaar na ñi nga xamante ni ñoo koy topp ñëpp tey seen xol sedd na bu baax a baax xam nañ bu baax a baax tey li aju ci al amru bil maaruf wa nahyu anil munkar mu leeral ko bu baax nag am tomb yu am solo yoo xamante ni jot na ko indi li ci jiitu mooy wax lan mooy maaruf xamle ko bu baax yaatal ko tas ko faram-fàccee ko bu ñu baree bëri ki war a sóobu ci mbir mu mel noonu xam fan lay teg ay tànkam xam nan la ci fexe ba am ci ndam ci li nga xamante ni mooy lool waaye itam xamle li nga xamoo di munkar xamle ko yaatal ko faram ko ni nga xamante ni noonu la yaatale li nga xamant moo di maaruf ci biir loolu itam ci la wax wasaayil yi wala boog ci la wax li nga xam moo di euh, arkan yi wala boog yi nga xamante ni mooy yi aju ci mbir moom yëpp doog a mujj li nga xam moo di wasaayil yi dañ ci wax tuuti nga xamante ni moom wax na ne buñ doon xamle tey maaruf mooy ataa topp lu ñu war a topp loo xam ne waras nañ koo xam ngir teg ci suñu tànk bu baax a baax waaye tam xamle mun munkar mooy al maasiya ñun ñëpp yaakaar naa li ñuy daw te kenn bëggu cee gis euh, sa bopp wala sa moroom wala sa mbopp wala sa koo xam yaa koy lif mooy almaasiya loolu itam xamle ko bu baax a baax ba ñun ñëpp ñu xam ne loolu kat lu ñu war a daw la lu ñu war a moytandiku la bu baax a baax ba wax ni itam loolu nit ñu baax ñëpp moom lañ doon yittewoo ci lañ tegoon seen tànk ba wax ne yontu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ay yitteem lépp ci loolu la ko joyaloon ndax dafa am lu ñu ko waxoon loo xam ne euh, mooy xeet wi gën ci xeet yi mooy xeet woo xamante ni mooy ngeen ngi mbindee mooy xeetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñuy digle lu baax waaye tere aw safaan loolu tax na yontu Muhammad sallallahu alayhi wasallam sañ ko tuddee annabiyul amirun naahi loolu itam leeral na ko euh, bu baax a baax ci biir loolu itam ci la wax ne alxuraan nag alxuraanul karim nga xamante mooy delluwaay bi boroom xam-xam bu ne bu dee borom xam-xamu jullit wala lislaam wala lu aju ci mbir moomu saa boo waxee te waxoon alxuraan lii la ca wax mën na am ñu xaw ca am sikk sàkka donte mën na sañ ko gëm wala mën na sañ ko kii wala ka nga xamante ni moom la ko moo ko indi mu ngi koy balloo ci li nga xam moo di alxuraan mu wax ne alxuraanul karim boobu nag am na ayat yu am solo yu bëri yoo xamante ni mën naa toll ci fanweer ak juróom-ñett yoo xam ne mu ngi wax rek ci digle ci digle lu baax waaye itam xam lu baax di ko digle bu baax a baax loolu bu fekkee day tekki dara mooy day am am solo am solo goo xamante ni euh, moom la digle lu baax am solo niki noonu itam ci la wax ne lu toll fukk ak juróom-benn ci ay aayaat yoo xamante ni ñëw na ci li nga xam moo di munkar nga xamante ni mooy euh, li nga xam ne mooy li ñu war a bàyyi mooy sifaanu lu baax ñu war koo xam moytandi ko baax baax yooyu itam jot na tee Euh, leeral bu baax a baax loolu itam bu fekkente ne loolu am na lu muy digle wala am na lu muy tekki ci aay bi nga xam moom laa waxoon kuntu kuntum xayra ummatin uxrijat li naas taamuruna bil maaruf tanhawna anil munkar bu fekkee ne am na lu muy tekki mooy ngeen gi def yàgg nañ koo tàgg waaye rawatina xeetam wi nga xamante ni ñoom ñoo tënku ci lan ñi nga xam ñooy digle lu baax waaye itam di moytandikuloo nit ñi ci li nga xamoo di sëfaan lu baax loolu itam yaakaar na war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax mu waxati ni lu mel noonu sax dañoo gis ne nit ki ku ne ci ñun li muy bëgg ak li muy wut ak li muy yittewoo saa su nag waxtu mooy yërëmande suñu borom subhanahu wa taala mu wax ne nag yàlla dina yërëm ñi nga xam ñooy digle lu baax waaye itam di tere li nga xamee ne moo di aw safaan loolu itam war nañ cee mun a bàyyi xel bu baax a baax xam ne eh, jumtaay bu am solo la wax na sax ne saraxe ak amam solo ni nga xam noonu la ko ñu bëri yittewoo ni nga xam ñu bëri itam noonu lañ ko bëgg nga xam ne saa su nag waxtu ne boo gisee nit koo xam ne yelloo na ko nga dindi ci la nga xam ne moom la la suñu borom subhaanahu wa taala dénk lu néew la lu bëri la nga dindi joxe ci mbir mi noonu ndax lan sàkku ci euh, yoolu li nga xam moo di saraxe moo xam ne nag digle lu baax saraxe la waaye te aw safaan itam loolu saraxe la kon mën na ni itam loolu bu fekkee am na euh, ci euh, mën nañoo xam ne wàccuwaay bu am solo boo xamante ni moom la kii ci la wax nag ne xemem loo bi mu xemem loo nit ñi nag woo leen wax leen ni mu amee solo ni mu baaxee niñ ko borom xam-xam yi euh, doon defee ñu bëree bëri yittewoo ko yàkkawle koo xam ne ah waaw kay kon man bés ni ki tey dinaa tàmbalee li nga xam mooy amru bil ma'ruf wala nahyi anil munkar mu leen déet nag dafa am churut yoo xamante ni ngir nit ki mën koo def dafa am fooy tënku charte yooyu nag mu bëri lool. waaye mu tënk ko ci waxi Cheikhul Xadim Cheikh Ahmad Bamb ci wax joo xam ne wax na ko ci téeram bu am solo boobu nga xamante mooy di jawharatu nafi jawharu nafis euh, te la ca gën a fës te ñu gën ko ci war a xam te mu ëmb lu bëree bari te yaatu mooy tasxiixul imaan nit ki war a digle wala mu tere war naa xam li muy digle lan la li muy tere lan la waaye itam ndax moom tënku na ci ndax moom itam ak ngëmam wér na bu baax a baax ndax nekkul nag dangay ngay digle loo xamante ni tënkuwul ci li nga xamante ni islaam kon faw nga xam iimaan euh, dëgg-dëgg mu nekk ci yow dëgg-dëgg nga wéral ko dëgg-dëgg doog a mën a tàmbalee mën a liggéey liggéey boobu nga xamee moo di euh, al iman wala boog li nga xamoo di al amru bil maaruf wa nahyu anil munkar mu xamle ko nag wax ne itam buñ ko doon xamle tey faw nit ki xam faratay jëmmam furudul ayni yi ndax nit ki bu fekkee ne xamul dañuy far ne du sayin la yuti ki ki ki amul ki amul dara yaakaar na mënta joxe dara ki nga xam ne moom moom lañ yaakaar ne daa am lu muy joxe ñu yaakaar ko ci moom te yoru ko amu ko mënu koo joxe kon yooyu tam nee na faw nag ñu xam farata yi xam suna yi jàng xam ahkaam yi xam arkaan yi doog mën a digle doog a mën a tere yooyu itam euh, wax na ko ci biir ay waxam mu wax ne itam faw mu nekk koo xam ne aalim faw mu xam ku xam lay doon xam lan mooy munkar dëgg-dëgg comme ni mu ko leerale ni mu ko yaatale ni mu faram-fàccee lan mooy munkar foo mu xam lan mooy maaruf dëgg-dëgg xamle ko comme ni nga xam noonu la ko yaatale nit ki nag foo mu xam ñaar yooyu xam lii kat munkar la xam lii kat maaruf la bañ a jaxase diggante munkar ak maaruf ndax ñoom ñoom ñoom ñaar ay aks lañ bu ko xamee rek mën naa tàmbali nag am benn charte boo xamante ni mën naa euh, digle foo mu nekk itam ku xam ku am ku Euh, euh, munkar bu fekkee ne am na mais bu fekkee ne yow amoo dara ji amoo kilifteef gi amoo wàccuwaay bi bàyyiwuñ la xel joxuñ la loolu nga ngay déglee ko tere bu boobaa yaakaar naa mën naa am nga son nga son lool donte mën naa am nga am tuyaaba ji waaye nag euh, ña ngay digal ak ña ngay tere ndax nañ ko déglu loolu itam wax na ne ci jumtuwaay yi mooy ci surut yi fow mu doon nit koo xamante ni kilifa lay doon koo xam ne kuñ mën a xam wekk ko bu baax a baax. àndaale itam faw mu am ci ah faw nga maandu nit koo xamante ni nit ku maandu terewoo ci sa baneexu bàkkan waaye diglewu ci sa baneexu bàkkan loolu la ñu waxoon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam laa yantiqu anil hawa in huwa illaa wahyun yuuha loolu itam war a sañ cee bàyyi xel ne nit ki buy digle du du tënku ci bëgg-bëggam buy tere itam du tënku ci li nga xamoon li ko naqar rek di digle ko tere loolu itam war a sañ cee euh, bàyyi xel bu baax a baax ci biir loolu ci la ñëwaat rek wax ne nag Euh, faw nag ñu sàmm bu baax a baax li nga xamante ni moo di maaruuf bi euh, xam itam li nga xamante mooy nahyu bi kiy digle tënku ci ndax laa tanaa an sa in wa tati na aarun alayka isafaltam asim loolu yaakaar na itam leeral na ci euh, faram na ko baax baax nit ki buy digle mbir day fekk mu nekk ca ñu xam ko ca ñu ràññee ko ca mu tënku ci mbir mu mel noonu doog bu digle ñoo xam ne ah waaw moom de li muy digle moom moom day digle càngaay de moom daa fekk sangu na ba ba set moom waaye nag bu fekkee nag yow doo sangu euh, setoo yaa gën tilim bu noppi doy digle ñi ngay digle moom boo mooy sax ay reetaan da leen di xaw a kii kon mel na ni itam faw nit ki tënku ci li nga xamante ni moom mooy lu baax li muy digle waaye itam moytandiku daw sori li nga xam ne mooy lu bon li nga xamante ni moom lay tere bu fekkee yooyu amul pour digle bi ñu mën koo dégg fam jëm ndax lu jóge ci xol ci xol la jëm waaye bu fekkee ne li ngay wax moom sàllam nañ wii la yam jëfe woo ko nekkul i'tiqaadu qalbi nekkul euh, nutqun bi lisaan nekkul amal bi jawaare nga bëgg nit ki def ko noonu capté ko dégg ko te di ko jëfe loolu euh, dina jafe loolu ba mu indi ci benn aaya bu baax bàyyi aaya boo xamante ni euh, leeral na ko faram-fàccee na ko bu baax a baax ba mel na ni loolu ab delluwaay la boo xam ne nit ku ne war na di ci bàyyi xel baax a baax nga xam ne boo dee kilifa war di digle am ñoo ja njaboote am ñoo xam ne yaa leen yilif seen kilifteef ci yow la yëkku yow lañ wuulu yow lañ doyloo ci wàllu anam wu mën doon fexeel ba la nga xamante ni moom la suñu borom subhaanahu wa taala nga koy digle to tënku ca la nga xam ne moom la tere nga koy tere to sori ko bu baax a baax day tax ña ngay digal dinañ ca mën a tënku ña ngay tere itam dinañ ko mën a sori bu baax a baax. loolu itam doon kilifa sañ digle am jumtuwaay yi am daraja ji am kàttan ji am matuwaay yi du tax nag nga yëddu nit ñi nga xaar bu ñu nekk ci seen néeg wala ñu nekk seen kër wala ñu nekk foo xam ne ñu làqu li ñuy def bëgguñ nga gis ko wala bëgguñu keneen gis ko wala am na xel muñ la bàyyi wala ragal nañ la boo lañuy def ñu ngi def waaye ñu ngi koy sàcc di ko def di nëbbatu di ko def nga yëddu di def te jasus boo àgg sa ca ñooñu di leen yedd loolu am na ci misaal mu am solo moo xamante ni yaakaar na leeral na ko muy ko mel ni Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bi nga xamante ni ñëw na fekk ay euh, ñen ci ñoo xamee saxaaba la ñu woon doon jëfandikoo naka su dul noonu mu wax la ne lii day suñu borom da koy tere mu wax ko ne ni nga def ba gis ñu day ni nga ni nga def itam bu xam ne ñu ngi koy jëfandikoo noonu suñu borom da koy tere te mel na nii da ngaa waroon a yëglu jaar fi nga war a jaar boo ñu xam ni ndax yaa ngi ñëw bu boobaa mën naa am lii nga ñu fekkee doo doo ko xam loolu itam nekkul ne nit di am kilifteef rek di jaay sañ-sañ bi di wane lu mel noonu loolu nag Sëriñ Tuubaa Séex Ahmadu Bamba radiyallahu anhu wa nafaana laa bi barakaatihi am na e, njàngale mu am solo misaal mu am solo mu ci doon e, def lu mel ni ñi nga xam ne ñoo ko toppoon te nekkoon ci këram ci këppaaram ci wet ci wetam doon digle ay digleem e, doon di déglu ay digleem di bàyyi ay tereem moom bu fekkaan njëkk laa gis ngay def naka sa dul noonu du la wax dara du la feeñu day daadu delluwaat boo ay fan mu daal di woote nag ñi nga xam ñoo nekk ci kër gi buñ dajee muy tudd mbir mu mel noonu nangam day baaxul nangam de kenn waru koo def nangam de ku ko def nangam bu ko defee yow ma nga xam ne yaa ko defoon war ngaa mën a xam ne yow mii kat wax ji yaa ko moom mën naa nag gisu la mën naa itam yow gisoo ko waaye nag am na lu muy jàngale loo xamante ni dal na sa kaw kon mën nga cee jànge yow mi ko doon def ngir bàyyi ko moytandi ko baax baax yow mi nga xam ne jotoo koo def itam jotoo caa ne da xam ne loolu muy tere kat du lu baax loolu am njàngale moom solo moo xamante ne Sëriñ Tuubaa Séex Ahmadu Bamba doon na ko def ci ñi nga xam ne ñooy ay atbaam mu amoon solo lool ci xikma yi ci euh, yërmande gi ci itam ci woyafte gi ci itam ci euh, mën leen a bàyyee seen bopp ñu moom seen bopp tuuti waaye teewul nag dina xam ñim nekkal ñan la diwul lu mu doon diw lu man diw lim lu lan lan la ñeme diw lan la ñemewul bu boobaa ci lay mën a ñëw nag mën a xam nan lay yare diw mi nan lay toppatoo diw mi nan lay jubbante diw mi ci loolu lépp nag kon kilifa taxul nga def tajasus di yëddu nit ñi ba dem fekk ñu def ab safaan nga dal seen kaw bu boobaa mën naa am sax xol daal di jóg ci ñoom la nga xam ne moom nga doon tere ñu wéy di ko def fetteeru di ko def ndax nang leen fekke ak na leen ko digle daandoog ma loolu itam ci laa wax ne jumtuwaay yi bokk na ci faw nga am ma am xarañteef euh, li nga xam mooy yaay kawe nit ñi nag yaay tiim nit ñi ci wàllu xam-xam ci wàllu seetlu ci wàllu basiira ci yooyu yëpp faw nga am ci yu bëri ngànnaay yu bëri yoo xam ne koy ngànnaayoo téye ko am ko ngir mën di ko jëfandikoo di mën di yar nit ñi waaye boo tolloo ak ñoom wala sax ñoom ñu ñu ñu ñu ñu kawe la ndax boo seetloo ci jamono ji tey bu fekkee ne da ngaa bëgg a yar nit faw jumtuwaay yi nga xamante nii moo tasaaroo jumtuwaay yi nga xamante ni moo gaaw a yaatu jumtuwaay yi nga xamante ni àddina lépp mu ngi ci biir jumtuwaay yi nga xam ne ñëpp daw nañ wuti ko ñen ñi xamuñu luñ ci war a jëfandikoo ñen ñi xam nañ ko waaye am na luñ ci gën a yitteel loolu itam yow mii aji yare buñ ko méngalee ci jamono ji faw nga xam loola nag waaye boo bu dee xamoo ko nit ki nga yar moo la gën a kawe moo la gën a foor am na lu muy xam am na lu muy seetaan am lu muy déglu am na keneen ku koy diggal koo xamante ni yow xamoo ko fekkee woo ko agoo ca agoo agoo foofu nga xam ne falaak kon loolu itam faw nga am xekk mag yi basir bi itam faw nga am ko yooyu bu fekkee ne amoo ko rek daanaka sa digleeg sa tere mën naa am nga wax boo son waaye saa bu seetloo rek amul benn coppeeku amul benn euh, changement boo xam ne gis nga ne am na ci ki ngay diggal mu dem ci lu baax li waaye amul ci bàyyi lu bon li nga xam moom lay def te digli nga ba son la nga war a def lépp def nga ko waaye ka ngay digal de laa ëpp de la sut day déglu keneen koo xam ne du yow te yow kooku dégluwoo ko te xamoo ko te xamoo nan la nañ la kii ndax loolu muy ka koy digal wala ka muy déglu buy ñëw du jaar ci buntu waaye itam buy ñëw du yëglu bu boobaa yow mën nga ko bañ a xam kon ndikk nit ki itam li ñu naan branché faw nga branché xam xàmmee ubbeeku ci àddina mën a mën a euh, yar nit ñi loolu itam mu wax ne war nañoo xam ne nag ne maaruf at su kar la muy lu baax euh, daam sifaan sifaan bi nag mooy lu bon léegi nit ki nag bu fekkee ne xam nga lu baax te nekk ca dangaa war a xam le ki ngay digal lu baax rek mais bu fekkee da ngay digal nit ki rek lu baax nangam a baax nangam li nga war a def mag ñi kat nii lañ nekkoon naam baax na waaye bokk dul wax sifaanu lu baax loolu mën naa am mu jàpp ne lu leen lu mu gisati rek da jàpp ne lu baax li nga doon digle li nga doon wane li nga doon yaatal li nga doon euh, li nga ko doon xiirtal li nga ko doon jàngal lii itam ci la bokk te fekk ne xàmmeewul ñaar yi kon da ngay xamle maaruf ba mu xam ko waaye itam xam xamle ak sam muy munkar bi ngir nit ki bu gisee ñaar yi faw mu euh, mu xamee ko bu baax a baax ci noonu nag gën naa yaatal noonu waaye ci la ñëw nag ci li nga xam moo di wasaayil yi jumtuwaay yi nga xamante ni nit ki bu fekkee ne xam na maaruf di ci digle xam munkar di ci tere xam li nga xamee mooy soo sóot yi euh, ko ci te di ci yare faw nag mu am wasayil yoo xamante ni da koy am ko ci di ci digle di ci tere waaye bu fekkee loolu amoon itam faw rek euh, lee nga xamoon te doon ko digle euh, faw mu am loo xamante nañ ci xaw naqari te fekk du doon loo xam moo la gënal ci la wax ne nag a asabru faw nit ki mën a muñ ndax neewaa na nga bëgg nit nga bëgg ci nit ki lu baax rawat na xale nga xam ko ni ko xamee yow bëgg ko def ci moom néew ne xale bu ko xamee noonu topp la ca day mel ne sax day wax ne day jàpp ne liñ koy digal niñ ci sone sa sa intérêt sa njëriñ la yow yow mi koy digle ak a tere sa njëriñ la ba tax nag da koy xaw a ignorer tuuti bu boobaa boo muñul mën naa am nga gaaw a yokkaat gaaw a tayal te fekk na euh, mënoon ngaa wéyal rek yar boobu muñ euh, loolu kii na euh, loolu mën a sañ ko jànge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ab yarkat la woon ab diglikatu lu baax la woon ab terekatu safaan la woon waaye gis nga lañ ko jafee mu son ca lool mu metti lool mu naqari lool waaye luñ ko lu ko suñu borom subhanahu wa taala wasbir ala ma yaquluuna wahjurhum hajran jamila mu ñal rek dina ma sa baax mu ñal rek ci liñ lay wax mu ñal ci liñ lay def mu ñal ci tàggante giñ ci def mu ñal ci sobantal giñ ko def waaye mu ñal ci ñàkk gee topp giñ ñàkk a topp waaye mu ñal itam ci li nga xamante ni digle la goo xamante yaa ngi koy digle ñu jàpp ne yow lay jëriñ yow te fekk na ñoom lay jëriñ waaye itam lépp lu ñu ci wax muy ab safaan lépp loo xam ne gis nga ne waras nañu cee mën a topp wala luñ ne ci ngañ muñ ko ci muñ gu rafet goo xamante ni du ànd ak xiiro du ànd ak ŋaayo waaye du ànd ak noonu loolu itam am na beneen aay boo xam ne inna allaha maa saabiriin nit ki bu muñee rek mel na ni kon su borom subhanahu wa taala dina ko doole ci li nga xam ne lay def waaye bu fekkee ni ngaa da ngaa gaaw a décrasser da ngaa gaaw a gis sa bopp da ngaa gaaw a mer bu boobaa doo am xol bu yaatu bu mën a yar ki nga xam ne moom nga moom nga yar te itam euh, mel na ni boo dooloon suñu borom subhanahu wa taala jàpp ne yonent maam salaam sax sonn na ci ñi mu doon yar doo am tuut jàpp ne Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba am na ñu doon yar euh, doog am cee tuut bu boobaa yow en tant que yow moo xam ne yaa ngi yar euh, di nga gën ànd ak dal ànd ak muñ ànd ak patience ngir ñi nga yar mën na am. bu ñëpp jubul itam dina am ñoo xam ne dinañ ci jubbanti ko incha allah loolu itam wax na ko wax na itam euh, dafa am solo lool nit kii am xam-xam bi am xikma gi comme ni nga xam loolu ko xam-xam boobu nag ak xikma gi lan wa fi'lan say wax ak say jëf faw nga jëm ko méngale ci li nga xam kii yaru yaay loolu itam nga am foo koy defee muy barab boo koy defee lu mel ni barab bii tey lu mel ni jumaa lu mel ni jàkk moo tax ay jamono ñu bëree bëri jàppoon nañ jumaa wala jàkka moom allahu akbar asalaamaaleykum tëjal nañ dem bu beneen yoon waaye nag ci kaw loolu ci xam-xam ci kilifteef wala ci li nga xam mooy xam wàccuwaay jàkk ak jumaa moo tax ci ndigalu kilifa yi fi jaar daayira daayira bii di muqaddamatul xidma xam loolu xam ne jàkk ab yaruwaay la xam ne ab jumtuwaay la xam ne bokk na ci ñi nga xam ne moom la yiñ ci yittewoo ñu daal di ñëw nag am ay waxtaan am solo yoo xamante ni koo gis ci àddina koo dégg ci àddina mu ngi xentu di ñàkk mu xet ñëw dëkk ko waxtaan ci jumaay Tuubaa gi la jóge itam bokk ci jumtuwaay yi nga xamante ni wax na ne faw mun a am ab yaruwaay loolu nag mën na am daara mën naa am école mën naa am kii xam naa mënoon naa gën a yaatu noonu sëñ bi leer na faram-fàcceen euh, ndax daa li ñuy waxati sax daa mel gën ko tilimal la waaye li nga wax moom alhamdulilah liñ seenoon ci yow lépp noonu nga ko defee wala nu kawe njot nga ko defee di la ñaanal nga teewaat ko fekkaat ñu fi ay yoon yu bëree bëri incha allah yoo xamante ni kii na xanaa nag euh, ñu leen di fàtte rek suba incha allah am na beneen moobu boo xam ne waras nañ cee indi euh, ki nga xam moo di sëriñ Muntaqa Jatara dina ñëw muy azakaatu ahamiyatuha muy jëmmi asakatu ñu toll ci waxtu woo lool njëriñ li nga xam moom la am ak jeexital yi nga xam ne moom lay def ci diggante ñi nga xam ñoo koy jokkalante wala diggante ñi nga xam ñoo di jullit ñi loolu mooy nekkoon li nga xam ne moom lañ leen indiloon tey waaxiru daanawaana an alhamdulillah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu